salaatu tasbih na yàgg nañ koo wax moom la yonent bi xoowoon bàyyi taxam ba abbas ne ko abbas doo ñëw ma may la wala ma jox la loo xam ne soo ko defee ñu jéggale sa bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yi yi nga tay ak yi nga tayut yi nga xam ak yi nga xamut yu mag yeeg yu ndaw yi yu feeñ yeeg yu nëbbu yi abbas ne ko soxla naa ko kay ñun tamit ñu ne ko soxla nañ ko mu jox ko abbas joxaale ñu ko mu ne ko abbas julli gi ma bëgg laa jox te boo ko defee jégal sa bàkkaar yi maa ngi lay ñaan soo ko mënee sa dund gi yépp nga def ko ci benn yoon boo ko mënut soo ko mënoon ba du set benn soo ko mënut semaine bu ne benn soo ko mënut weer wu benn soo ko mënut xat mu ne benn yoon soo ko mënut sa dund gi yépp nga fexe ba def ko ci benn yoon nan la mu ne ko da ngay kàbbaar xamul liqaam xamul dara naafile xamul liqaam kàbbaaral rek nga wax ne allahu akbar jàng fatiha ak saar woo mokkal baax na su paree nag ba fatiha ak saar wa jeex bala ngaa def dara waxal subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa wallahu akbar boo ko dane wala hawla wala quwwata tamit baax na mën nañoo ànd nga wax ko fukki yoon ak juróom gannaaw fatiha ak saar wa su paree nga rukkoo wax ko fukki yoon su paree nga siggi ca rukkoo ba wax sami allahu liman hamida wax loolu ma wax fukki yoon subhanallah walhamdulilah wala ilaha wala akbar nga ru nga sujjoot wax ko fukki yoon toogaat wax ko fukki yoon sujjootaat wax ko fukki yoon toogaat ca sujjoot ba wax ko fukki yoon gannaaw sujjootam ñaare ba foofu jalsatul istiraaha la soo calculer lii juróom-ñaar fukki ka lay doon ak juróom waaye boo ko bëggee tënk gannaaw faatiha ak saar rek mooy fukk ak juróom bu ko mooyee loo defati rek fukk la benn rakkaxa bi noonu muy benn bu ñaareel ba tamit comme noonu rek la jug nga rek jàng faatiha ak saar wax nga subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha wallaahu akbar gannaaw faatiha ak saar fukki yoon ak juróom nga rukkoo xati waxati ko fukk siggi waxati ko fukk sujjóot wax ko fukk su joo toog toog fa wax ko fukk su jootaat wax ko fukk toogaat fa wax ko fukk taaya sëlmal comme jullee guddi la jullee guddi ñaari rakkaa la yonent toog ko wax mas naa mas naa salaatul layli mas naa mas naa nga xam ñaar rakkaa sëlmal jugaat tamit defee ko comme ni nga defee ñaar rakkaa yu njëkk yi lii boo calculé sàbbaal ya ñetti téeméeri sàbbaal la lay jox ndax juróom-ñaar fukk ak juróom ba muy ñeenti yoon boo ko jëlee soixante quinze fois quatre dafay nekk trois cent lii nag ku ko def yàlla jégal sa bàkkaar yu njëkk yi yu mujj yi yu tay yi nga tayut yi nga xam yi nga xamul lii yomb na nag ni nga góor góor la ba mën a dugal crédit xam sa bonus bi fi mu toll xam lii ñu la envoyé ci ay message genn wàllatu genn wàllam boo ko defee man lii soo ko mënee nag loo sugg soxla de ko def guddeeg dimanche ba sedd altine baax na moo